présumé divorce Khady Ndiaye Bisou ay révélation yu yees daal dinañu koy amal ci arrestation waykat bi di Sohiba Kouyaté ci mbiri sàcc yi nga xam ne moo taxoon ñu daal di koy teg loxo mbokki internet Dakar 221 dalee nag jàmm ñu daal di ñëw ak yéen ci seen émission Buzz People comme ni ñu fa tàmmee di ko defee fii ci DKR 221 ñu daal di tàmbali information yi naka ak kii di Khady bi Bijou animatrice ba nga xam ne mu nga nekk foofee euh, ca la TFM comme ni ngeen ko xamee depuis presque démb dafa am ab information bu nekk di lëmbee internet bi mu ngi laale ab tasub sëyam moom ak kii di jibi sëy wax nañ ne nag lu ëpp juróom-ñaari at gannaaw ba ñu nekkee ca buumu sëy yàlla daal di leen dénk ñetti bant ñoom mu daal di viral lool ci internet bi mooy ne ce week dañoo daal di gis benn xale bu jigéen buy wuyoo ci trop princesse euh, Fati ci internet bi daal di xam ne ne moom dañu ko daal di takk désormais elle est madame si ba pare moom moo nekk awa yaay donc mu commencé nag créer ampleur gannaaw ba ñu gisee yenn page nga xam ne am nañu ay followers daal di xam ne ne moom moo moom moom mooy di princesse Fati xale bu gox bi nga xam ne moo ko daal di jël soxna moo nekk jibi mi nga xam ne moo fi nekkoon borom kër ci kii di Khady bi ju ñoom euh, finalement dañoo divorcé mu nekk ab mbir ma nga xam ne dañu ko amal dans la plus grande discrétion gannaaw nag ba ñu ko annoncé ñu gis ne aussi ay fan yi ñu génn rek kii di Khady Ndiaye Bijou moom mu ngi doon fêter son anniversaire ba gis nañu sax ay internet yu bëri daal di riposter cadeau bi nga xam ne daal dinañu ko koy jébal mu nekk ab oto ba nga xam ne macha allah donc aussi cette année ci ñu kenn gisul aussi borom kër borom këram euh, ci vidéo yi nga xam ne moom mu ngi ci nekkoon en compagnie de ses amis doon fêter son anniversaire jusque laa nag moom la principale ne gisaguñu ko mu daal di yëy yàbbi ca bi yeneen information mais en tout cas nekk na la nga xam ne mu ngi lëmbee lool internet bi son présumé divorce ay rumeur nag la ñu ko mën a tuddee ndax jusque laa amul kenn ci ñoom ñaari côté yi ka nga xam ne gis nañu say jegeñaale ñu daal di confirmer li ni mel mais gis nañu daal xale bu jigéen bi daal di posté ab vidéo ak boroom këram mais def daf dafa nëbb kanam gi ñu daal di jàll ca waykat bi di Sohiba Kouyaté moom nag ah, ak acolitam bay wuyo ca tuxu Abdoulaye Sow daal dina ñuy xam ne ni niki baax ki démb ci lundi bi dañu leen daal di déférer au parquet de Dakar pour association de malfaiteurs vol commis en réunion avec euh, avec effraction et usage de moyens de transport voilà ñoom ñax ñi nag euh, li tax ñu daal di leen teg loxo kii di Sohibou Kouyaté dafa laale ak ay mbiri sàcc yi nga xam ne mu ngi ko amal ca diggante 2020 jàpp 2024 plainte bi nga xam ne njëkk na nag buñ sukkandikoo ci information yi nga xam ne waa kawte fësal nañu ko mu ngi laale ak euh, la plainte numéro 2871 du 11 août au fil euh, de 2022 laale ak ab waay yi nga xam ne mu ngi wuy ci tuxu El Hadji moom nag nee na mu nga dëkk foofu

fay emporter benn coffre ba nga xam ne mu ngi defoon ay bijoux jabaram yóbbaale fa aussi benn xaalis ba nga xam ne mu ngi ko fa bàyyi woon wax na ne c'était euh, plus c'était la somme d'un million de francs CFA bijoux jabaram yi mu ngi nekkoon euh, ci valeur u cinq millions ci suñuy xaalis gannaaw ba ñu yóbbee loolu yëpp nag ñoom ñett ñi nga xam ne ñoo ñëwoon sàcc si nee na ñaar ñi dañoo daw mais kenn ki dafa jotoon a yéeg ci benn oto daal di yóbbaale euh, coffre fort bi nga xam ne moom moo defoon bijoux yi ak yooyu noonu par la suite la daal di dem déposer ab plainte à ñu daal di gisaat ne aussi am na beneen waaja nga xam ne moom aussi dafa daal di déposer ab plainte ngir ne dañoo sàcc si dañoo ñëw dajji appartement am daal di sàcc xaalisam ba nga xam ne daf kaa dencoon foofee moom aussi wax nañ ne këram dafa amoon ay caméra de surveillance bi nga xam ne nag moom moo ci gën a doy wax mu ngi laale ak euh, la dame sëy moom mi nga xam ne nag la dame Sey Joxaane voilà moom nee na këram la ñu ñëw dajee daal di fa yóbbu presque cinq cent millions de francs CFA donc plainte bi nga xam ne déposé na ko nag nee na euh, son petit fils bi nga xam ne moo nekkoon këram il était capable daal di identifier euh, sàcc yi nga xam ne ñoom ñoo ñëwoon foofee daal di nañuy xam ne nag gannaaw ba ñu exploiter aussi les caméras de surveillance dañoo daal di euh, tàmbalee di suivre piste yi nga xam ni moom moom la enquêteurs yi amoon léegi ca biir loolee aussi ba tey moom Sohiba Kouyaté daal dinañuy xam ne ne dafa am oto bi nga xam ne bi ñuy sàcc si moom la indi woon numéro euh, de matriculation bi ba ñu ko jëlee ba daal di koy euh, saytu daf leen mëne ci tur ci benn waaye kooke nag gannaaw ba ñu demee ba daal takk yi daal di koy woolu déglu ko la mu xam le mooy boobulee oto moo ko moomoon mais daf koy jaay waykat bi di Sohiba Kouyaté donc cela fait quatre ans moom yoratul oto bi Sohiba moo ko yor donc bu fekkee ne sàcc wala ay mbir daf ci am kon moom ca ay mbiram la demee ñu daal di leen fàttali nag ne c'est pas la première fois Keliso Hiba Kouyaté ñu koy dégg ci ay mbiri euh, sàcc ak li ndax bu ngeen fàttali ko ay at ci ginnaaw déggoon nañu ko fi aussi ci benn cambriolage ba nga xam ne ñu ngi ko amaloon ci appartement kii di Didier Boubso actuellement nag wax nañu ne enquête baa ngay suivre Sonko du teene nag ñoom ñu nga nekk ca loxol yoon ni ki baax ki démb sax xamle woon nañ ne ils avaient bénéficié d'un retour de parquet gannaaw ba information bi tàmbalee lëmbee internet bi sax ñu ngi doon gis ay postam ci réseau social bi di TikTok ya nga xam ne nag méngoowut woon meloon na ne sax yenn ci information yi nga xam ne ñu ngi daw amul dara la nga xam ne nekk na ci dëgg ñu daal di jàll ci kii di euh, Ada Fass donc moom euh, ni ki démb gannaaw ba ñu xam leen ni daal di nañu koy aj pour plus d'un an y a encore une mauvaise nouvelle ba nga xam ne daal di nay wàcc ci kawam mooy ne moom mbër mi daal di nañu koy amal ab amende ci lu ëpp benn million ci suñuy xaalis plus don million de francs CFA yi nga xam ne waa CNG daal di nañu koy nangu ca moom pareil euh, pour kii di Ama Baldé mbëru Pikine bi moom aussi daal di nañu koy nangul xaalisam pareil pour Gouye Gui ak kii di Gris xam ne ne nag daal dinañ leen dagg xaalis bu takku ngir ne temps bi nga xam ne dañ leen koo jébaloon dañu koo daal di passé ñu daal di ñëw sax ci réaction bi nga xam ne kii di Modou Mbaye daal dina koy amal en l'encontre de Ada bi nga xam ne def nañu ko ko nee na c'est normal parce que Ada Fass dafa nekk nga xam ne daa mel ni wóolul boppam ndax ni mu joxee bopp gàllaaj dafa ëpp te kii di Modou Lo rek waroon na kaa jox waroon na kaa doy euh, jàngat ci moom ndax gis na ko fi avant lim fi daan def et pourtant léegi dafa dem ba xam ne entraînement dong moo ko mën a may yenn focaliser wu xale la na wàññi bopp bi nga xam ne daal dina koy jox gàllaaj te gën focus ci entraînement yi te xam ne moom rek moo ko mën a jàppale mu génn ci làmb ji nga xam ne nekk na ci ñu daal di ñëw euh, ca kii di euh, bi nga xam ne daal di nay viral lool laale nag ak ab live ba nga xam ne mu ngi ko doon def euh, doon ñëw ci weenam yi nga xam ne dafa xëy ak ni ñu ko sonalee beaucoup de sénégalais nag daal di koy jugé irrespectueux nee ñu li nga xam ne def na ko noonee dafay dafa dafa tegginewul mooy jël ñaari ween yi di ko am ay jeux nga xam ne mu ngi ko di ngeen ko gis nii ci vidéo bi voilà mu nekk la nga xam ne dal euh, daal dinay créé moom laa principale concernée nag euh, ba tey kenn déggagu ko mu daal di ci euh, yéeyaab bi ma gis nii yàlla ah <laughs> ban soutien ma jotul ban ban soutien ma jotul ban ban ban soutien juróomi kilo sa loxo ndey joor lii ñu daal di ñëw ci kawteef bi nga xam ne moo daal di xewee foofee ca Touba dox ca diggante ab xale bu jigéen buy wuyu ca turu na Guèye ak ab xale bu góor ba nga xam ne chauffeur la buy wuyu ca turu Dey ñoom ñaax nag seen problème mooy ne xale bu góor bi dafa jël euh, téléphone xale bu jigéen bi gannaaw ba mu ba mu ko réeree doon ko fuyee ba daal di fekk ca moom ay vidéo partie intime donc mu nekkoon na nga xam ne nag xale bu jigéen bi daf ko doon def daal di koy denc xale bu góor bi daal di ciy jot moom nag nee na gannaaw ba téléphone am bi réeree mu toog lu yàgg gisu ko dafa dem daal di récupérer pisam di woyal dox ay yëfam nee na nag dafay toog rek jékki-jékki gis ñu envoyé ko vidéo taati neenam yi nga xam ne defoon na ci téléphone gannaaw ba mu jotee yooyu les vidéo nag waa ji daal di koy woo menacé ko ne ko bis bu ko boolee police dina ko rey euh, wala keneen ka nga xam ne jëm na cee def intermédiaire aussi dina ko rey la mu soxla nag mooy xaalis ba pare daal di koy tëddee xale bi di wuyoo ca turo na gay daal di fay porter plainte contre X takk dex yi nag ca la ñu koy daal di proposer mu teg dil euh, mu joxante rendez-vous ak waa ji ay boori trois heures de matin ngir mu daal di koy fekk këram dina ko defaral la mu bëgg malheureusement nag euh, pour chauffeur bi di dee dee gannaaw bu mu fa wàccee takk dex yi ca la koy daal di teg loxo ba mu doon jàmmaaxloo ak ñoom nag ca procès verbal ba kàddu yi nga xam ne daal dina ko fay yëkkati mooy ne moom euh, nekkul woon téléphone bi daf ko jëndee ci marché noir bi donc nekkul la nga xam ne daf kaa fox ba tax muy chantage xale bu jigéen bi ci marché noir bi la ñu ko ko jaayee mu tombé ci daal dinay reconnaître aussi li nga xam ne moom la ñu koy toppee jéggalu ko du tee ne nag euh, moom daal dinañu koy placer en garde à vue ba defeexee nañu ko sax buñ sukkandikoo ci information yi nga xam ne waa Seneweb daal dinañu koy fësal euh, ñu daal di tëjee nag mbokki internet yi ci li nga xam ne moo xew niki démb foofee ca Kaolack euh, ci centre numéro 1506 bi daal di nañuy xam ne nag foofee presque 64 élèves di juróom benn fukki élèves ak ñeent ji nga xam ne dañoo waxoon def épreuve baccalauréat bi dañu leen daal di aj li ko waral nag mooy ne ñoom dañoo yóbbaale woon seen i téléphone portable nekkul woon nag la nga xam ne dañ ko doon utiliser au moment des examens ndax nee nañu dañu ko dugaloon seen i la ñu bëggoon nag euh, bu ñu sukkandikoo ca seen i bu ñu paree épreuve philosophie bi ñu daal di génn jël seeni téléphone révisé ndax am na beaucoup de documents ya nga xam ne par PDF la ñu leen koy envoyé te noonu dong lañ mën a def ngir daal di koy révisé président jury bi nag moom aussi daal di nay xam ne ne ñoom ñoo ñuy xale yi bu fekkee y a sûrement des ya nga xam ne mën nañu def recours donc moom ah, il a été clair et li nga xam ne waxoon nañu ko élèves yi laata ñuy tàmbali bac bi mooy bu leen téléphone topp si ci centre yi gannaaw bu dañoo dëgër bopp nag ba daal di koy def moo tax moom mu daal di jël xam ne nag c'est pas du tout partagé ñu bëri daal dinañu koy ñaawlu ñoo ngi leen di jaajëfal mbokk yi di leen jox dig daje beneen yoon incha allah ci seen beneen numéro Buzz Showbiz jërë ngeen jëf